mbokk internet yi dal leen ak jàmm Eumeu Sène bu Pikine Eumeu Sène ginnaaw nag keroog ba mu ñàkkee combat am ci diggante ki nga xamante ni ah, moom mooy Lac de Guiers am nag ay information yoo xam ne dañ koo jot a daal di nag véhiculé xam ne ni moom Eumeu Sène nag moo ko sax wax ne ah, waa Excaf Télécom dañ koo proposé sax quatre cent cinquante millions de francs fa ci xaalis boo xamante ne nag dañ ne woon ne ab cachet guñ koy fay la ci ah, bu bëggoon a bokk nag ci benn tournoi boo xam ne dafay am diggante nag moom Balla Gaye 2 Modou Lo Bombardier waaye moom Eumeu Sène ci boppam xam le ne nag ne fu mu toll moom ci boppam ngir wane nag du ay jafe-jafe xaalis moo tax mu bëri ak Lac de Guiers waaye làmb moo leen daal di boole su doon loolu kese mu dem daal di accepté nag euh, boobule cachet ci euh, tournoi boobee nga xamante ña fa nekkoon ñëpp amoon na nag chance ngir daal di jël ndam ni ci ñoom moom mi di Eumeu Sène la nu daal di xamle wax ne nag waaye amul nangu bile combat waaye nag loole tax moo tax mu daal di nag décliné offre boobu mu mel ni dafa daal di nag bañ boobule offre ci boobu le moom mi nga xamante ni nag lu nu mel ba ko daal di nag waxee waa SK Téléphone ci boppam dañoo daal di démentir lu nu mel ñoom ñi weddi ba mu set ba noppi sax daal di fenloo ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène ndax kii di Sidi Diagne nekk président directeur général bu groupe Excaf Télécom moo daal di nag indi démenti bi xam le ni nag Eumeu Sène ci boppam kon daf ko daal di bett ndax benn loolee amul ñaar nag bu fekkente ne nag ci bu muy wax mooy ci atum 2018 la woon ñu waroon leen proposé boobu le tournoi te tournoi boobu nag Escaf partenaire kese la ci woon waaye nekkul sax moom moo ko organisé benn structure moo ko naroon organisé te ci jamono jooju moom yi nga xamante ne mooy Eumeu Sène sax bañutu woon waaye rek dafa fekkoon ne dañoo jubóo woon ci ay kàddu waaye nag Eumeu Sène waru woon toog ba tey benn mu ci tudd mi nga xamante ni daraam dugg ci yoonam nekku si lu ab partenaire kese la woon beneen bi moom Sidi Diagne nekk PDG bu Excaf daal di jàpp ne nag ne heureusement que sax boobu le tournoi amul woon ndax Eumeu Sène ci boppam nag ci jamono yooyu bu ko jëloon nag ki nga xamante ni mooy Modou doon na ko nag dóor-dóor yu métti ndax ci jamono jooju nag seen combat boobu nga xamante ni sax moom Eumeu Sène Modou Lo da koo daal di nag daanoon kon